jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel Senego TV senego point com euh, tey nag ñi ngi ci benn safar euh, ci weeru màggal ñi ngi fii ci Touba ci rompoint point garage Dakar bi euh, benn fan ci weeru safar nag boo ko déggee sa xel day dem ci mbalem Touba kon tey mooy bis bu njëkk ci mbale mi di alxemes benn fan ci weeru safar gis ngeen suñu mbokk Baye Fall yi danoo génn tey ci ay Serigne Moudou Mbende Fall mi nga xam ni moo fi wutu maam moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall tey jii nag mooy benn fan ci weeru safar Baye Fall yi daal di jaaju def ko nan ko daan defee ay jamono waaye tey gis ngeen ni ndox mi bëri na lool ci Touba waaye gëm na ni balaa màggal gi incha allah rabbi lépp dana dem mbalit mi dana dem ndox mi dana dem ndax lépp seex mat Bamba Khadim Rasoul la gis ngeen tey ambiance ni mu amee ci Touba dafa mel ni tey jii sax mooy mooy màggalu Touba gi waaye tam xam ngeen ne tey ci benn fan gi bu mu bàyyi faali balee ba ngoon jot ba nga xam ne dalu nan dañuy dem ci jumaa yi Touba ji amal fa euh, bisu xasida maanaam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 sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue di ñaanal sëñ Fallou sëñ Moura Aminta suñ jawri sëñ Moustapha Amar di ñaanal sama sëriñ sëñ Aliou Fall mu sëñ Moura di ko ñaanal mu yàgg fi ci wér ci barke Cheikh Ibrahima Fall mbale moom gis nga ko rek Baye Fall moom moom daal fuñ toll daal moom ñu ngi déglu ndigal bu ndigal jógee ña nga ca luñ leen wax daal ñu ngi koy def incha allah ah, si ndigalul sëñ Amdi Modou benn Fall ñu fi toogal jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall dañ ko ko yàggaat defal nag tey di ci am ngërëmam lu sell ki ngeen gis mu toog fii nag mooy jëwriñu waar Cheikh Djili Fall ànd ak magam ju baax ji seex mu Mbar ñoo ngi leen di ñaanal yàgg ak ak wér waaw man de lii moom daa bokk sama liggéey ngërëmal Cheikh Ibrahima Fall laa ci yaakaar ndigal laa ci am nag sama sëriñ a ngi toog nii waaw lu dul dëgg du yàgg waaw jaageen jëf jaageen taw feex day sax fii ba màggal ñoo ngi ci waaye liggéey bi nag ba faaw la jëm moom waaw comme ni ko sëñ bi waxee rek jaageen jëf bi taxoon na rëpp waaye moom góor jigéen mag ak ndaw ñëpp moom ñu ngi ci bale bi sëriñ Tuubaa Mbàkke moom bu wootee bal lay subri sëriñ Mbàkke maram ñëpp lañ ko war a mën a wuy ndax góor jigéen mag ndaw waaw sëriñ Mountakha Mbacké ballay si biir sëriñ Mbacké maram yal na ko fi yàlla yàggal yàlla bakkanam bi yàlla na diw doj sëriñu Baye Fall yi moom it yal na fi yàlla nañu yàgg jiite waaw kii ku ko xeet yàlla na xeet di te ku ko yéene lu bon yàlla na ko ci jiitu man daal li may ñaan moom ci ci dëkkub sëriñ Touba Mbacké bi màggal gi daal yàlla nañ ko màggal ci jàmm mu jeex ci jàmm gan ñi ñibbi ci jàmm ñun ñëpp ñu bokk lépp lépp jàmm dëkk moom gëm naa ne am naa ci yaakaar ne bu neexee borom Touba Mbacké moom léppay set moom waaw wóor na Serigne Salim Mbacke yéen taalibe yéen ñi ñi ñuy jox nit ñi ñuy lekk ak ñuy naan it yéen ñi kenn amul seenu fay yàlla mi am seenu fay yàlla leen fay ndax nit moom bu dee liggéey nekk ci naaj ji liggéey ngay dem di xam di ko jox muy lekk di ko jox muy naan kooku kenn amatul ak fayam xanaa kontaan lool te ñaan sëñ Mountakha Bassirou mi yàlla yàggal ko fi lool te may ko fan gudd ak wér ba li mu yéene liggéeyal am lépp mu yàggale ko di sant nit nag sama sëriñ bi sëñ Jili Fall Fall kontaan ci moom lool nag kontaan ci liggéey bi rek di ñaan jàmm ci salaam yéegal de ko jàmm salaam jërëjëf am na ci yëg-yëg bu neex na wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla sëñ Muntaxa moom liggéey sëñ Touba rek la fi nekke ñu ngi koy ñaanal rek ci doole sëñ Touba yàlla na fanam yi di doj yàlla na dunda dunda dunda dund ba nit ñi xalaat li muy dund sax nu ko mën a dundee. kon am na yaakaar bari moom balaa màggal balaa màggal gi balaa màggal borom dëkk bi ni mu ko bëggee dëkk bi dina ni bi soobee yàlla.